asalaamaaleykum soppe xarit yi nuy nañ leen bu baax a baax man la Eva dama leen yónnee juste euh, vidéo bi xaw ma photo bi pour que xale bi nga xam ne moom moo ci nekk ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax sama kër la ñëw liggéey si mot na vingt jours agence moo ma ko joxoon comme ni ma baaxoo woon di jox ay jànk mais tey bu mu yeewoo dafa jël ci kër gi koppar gu bare jël chaîne or Euh, tasek sax jànq bi ca suuf xam naa paas bi kooku la ko laaj ne kooku na ko jox 8000 francs ndax maa ko yónti bi loolu amee mu daal di jël yépp daal di daw ci suba ba léegi ñu ngi koy seet mënuñu ko teg bët mi ngi tudd ay Aïcha Badji nee na mbokkam yi saanoo la ñu sant moom waa Ziguinchor la fii Dakar nee na Grand Yoff la dëkk dañu nekkoon ci yoon pour dem xama xam fi mu dëkk yépp ak nemmeeku ko mais balaa loolu loolu jot a am fekk na mu def li muy def ba noppi daal di daw ma bëgg ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax ku ko gis rek mu dimbali ñu contacter ñu bu ko defee ñu mën a dem vers moom jërë ngeen jëf